asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa jamaatal muslimine walmuslimaati walmuminine walmuminaat walqaanitiine walqaanitaati walsaadiqiine wasaadiqaat wasaabirine wasaabiraat walxaashiina walxaashiaati walmutasaddiqiina walmutasaddiqaat wasaaimina wasaaimaati walxaafisina furujuhum walxaafisaati wadakirina allah kasiran wadakiraati addallahu lahum maxfiratan wa ajran azima mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullah fépp nit mun di nekk ci àdduna bi ñu ngi ñëw tey am mbégte ñëwaat beneen jamono ci li nga xamante ni yàlla cërale nañu ko ndax yàlla mu ne na fadla bi yadi laahi yu'tiihi man yashaa alxuraan bi nga xamante ni yàlla ne ma fararnaa alayhim fi kitaab min shay'in wul dara te lépp a ngi si ñu ñëwoon nag di yëngatu si fànn bi ñu tuddee lasraar lasraar nag ay mbir luy yaatu yoo xamante ni maam yi jaar nañ si mboolem borom xam-xam yu mag yi am nañ si yoo xamante bind nañ ci te lépp rek dëppoo alxuraan ak sunna ñu ngi ñëw di leen présenté tur bi Mawlana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi di leen indi lenn li nga xamante ni mooy suñu yëngatu si liggéey bi nga xamante yàlla mooy nañu ko si xam-xam ba nga xamante ni li si si xam-xam bi mbirum baatin la li jëm si wàllum turu ay turu jinne ak li nga xamante ni maam yi bàyyiwoon nañ ko fi di ay tegtal lu jëm si xas sunguf reen ak yi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey si wàllu lépp loo xamante ni aajowoon na si loolu si biir loolu nag ñu ngi leen di njëkk a présenté produit bi nga xamante ni ñu bëri xamee nañu ko tey si àdduna bi ñu ngi koy liggéey yàlla def ñu ci satisfaire ay mbindeefu doomu aadama yu bëri moo xam ñu nekk Sénégal moo xam ñu nekk Europe yàlla taw fi xel mbir parce que yàlla mooy innama amruhu izaa araada shay'an an yaquula kun fayakun yëpp ci loxoom la nekk wa huwal qaahiru fawqa ibaadihi li ma neen mën ko yow lillaahi waahidul qahaar yàlla mooy mbindeef yi kon bu la yàlla cëralee xam-xam boobu tey nga ñëw di ci jëflante ak doomu aadama yi yëpp nañ ko delloo la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim produit bi ci njëkk bi ñu leen di njakk présenté mooy garab bu tudd sifa jóoni jóoni nga xamante ne day faj 70 maladies adduna bi yëpp xamee ñu ko wax dëgg yàlla ñàkk di ko liggéey depuis bi nga commencé liggéey léegi xam naa ne war naa tolloog lu mu néew mu gàtt fukki at yoo xamante ni ñu ngi ciy yëngatu ànd ak yeneen liggéey yoo xam ne dañ koy def parce que alxuraan la jàngaloo nekk doomu Baye Modou Habib Touré nekk seeti Cheikh Omar Touré Cheikh Omar Touré ku ne xamoon na ko ci pay bi waxante mu nekkoon mu xaddamu Baye bu mag yàlla mayoon ko ci xam-xam bii ñu yëngatu nii nga xam dañ ko def ko donn ci ay waajuram ñun ñu donn ko ci ñuy waajur Cheikh Mahamad Habib Touré boobu mu doon ko si waajuram Cheikh aske Cheikh Omar Touré dëgg yàlla nekkoon jàmbaaru lislaam goo xamante ni dëgg yàlla feegoon lépp luy xam-xam rawatina xam-xam bi xam-xam bii boo demee Saalum tey laa kulli xaal nekk lu ñu pooku réew parce que mag ñi ko fa yàlla mooy bëri nañ lool waaye nag tey si àdduna bi tey Saalum Saalum ñu ngi fépp ñu ngi fepp si àdduna bi parce que alxuraan moom moo yaatoo noonu aljamaatu rahmatan wal farqatu azab mbooloo yërmaan tàqaliku mbugal la moo waral tey ñu jóyee ko bu Ndofane tey ñëw fii Dakar xaw nañu fi yàgg de temps en temps am na ñoo xam ne ñu ngi leen yor ñu nekk foofu Saalum bi ñu jaayal produit boobu noonu muy sifaaw joni joni day faj juróom-ñaar fukki jàngoro bokk na tënk rek ndoxu siti bi ku ko yore yooyu noonu wala xamante ni dafa am problème ñàkk am doom muy jigéen ñi ak góor ñi nga xamante ni télé dafay leen di dal ci côté bu di dalee ne mu ngi suturaal ci boobu garab boobu ñu ngi koy liggéey di ko jaayloo ay nit ñoo xamante ni aussi ñoo ngi Saalum ba ci ay nit ñoo xamante ni aussi ñoo ngi Europe di contact di di di jokkoo ak ñun ñu si sant yàlla si côté boobu à part garab boobu aussi ñu ngi fekk ndomba bi ndomba bi ant sok ku ne xam na ne mu xeeti musiba yi si jamono bi ñu toll nii bëri na ñu si gis dëgg na rey nañ fii nit ah mu nekk mbir moo xamante ne xëy na saytaane moom la yàlla tënkoo doomu aadama nattoo leen ko mu dugg leen ba mënuñoo xamante ak seen ndeyjoor ak seen càmmoñ ñu ngi yàlla ñu ngi profité sax sa biir loolu di jaal waa umu islamique bi yëpp muy ndaw li nga xamante ni ab américain la boo xamante ni faatoon nañ ko fee ci mbir mi dina bàyyi di ko jaalee Papa Cheikh Tidiane alxalifa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu anhu mboolem njabootu Baye gi mu nekk mbir mu day waar mu métti mu tiis miina bi nag kii ndomb boobu nag dinay dox si fànn gu mel noonu parce que am na xeetu musiba yoo xam ne day ñëw avant wala yoo xamante ni war naa ñëwee ji ëllëg gars yi nekk Europe ñu nga xam dañuy dox si wàllu ut papier wala duñ am ay papier di na foofu noonu ndomb bi baax na si ñoom. ndox mi bu baax na ci ki nga xamante ni aussi dafay nekk di waaj ab yoonu tukki lu demee ni nekk ci oto wala ci bateau wala ci avion day musal nit ay accident ak loraangeeg yu mel noonu ndox mi bi baax na ci wàllum ca saytaane jinne rab liggéey gàllaaj yi ñu koy liggéey moom xam ne ne lépp loo xamante ni musiba la bu war a ñëwal doomu aadama bu nekk rek danga xamante ni yàlla mun naa dox sa diggante digganteeg ñooñu ba yàlla musal la parce que fii képp ku musi ku nekk yàlla moo lay muccal mais alxuraan boobu ñuy liggéey nag am nañ ci qualité bu wér loo xamante ni doon nañ ko suñu waajur yi dëgg yàlla di ko yàgg di liggéey di satisfaire ay mbindeefu doomu aadama ndomb bi dañ koy liggéey mu nekk antichoc xamante ni wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni jëflante naa si ñoom ñoom xam nañ lan mooy ndomb bi dañuy danañ ne wax ne am na garanti téeméer at yoo xamante ni képp ku ko takk yàlla dafa lay musal si xeetu mboolem xeetu musluwaay bu jiyee ko si ndomb bi aussi am nañ fi gar kii miina bi miina bi gàllaaj la boo xamante wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant suñu waajur parce que li si feewu dundam maanaam si jeexatalu at mi nga xamante ni saa si la pare pour uy ji boroom daanaka si si la jot miina boobu wax dëgg yàlla mu nekk gàllaaj boo xam ne yàgg na koy liggéey gars yi nekk Europe waaw wax nañu si ay kéemtaan yu doy waar yoo xam ne jëflante na si ak ay nit waaye émission bi taxañ na temps bi may wut loolu képp koo xamante ni daal bëgg naa xam lan mooy miina bi miina bi nag dañ koy bind si tisi malikaan yi mais danañ koy bind aussi si ay papier di ko def ndombaak yu mel noonu moom moom it li nga xamante ni ndomb bi da koy def si wàllu kaaraange mos la waa jinne saytaane ak dëmm wala ay liggéey wala ay lu demee ni wàllum armook yooyu day dox si loolu moom miina bi yàlla dimbale nañu daal ñu ngi koy liggéey wax dëgg yàlla lépp dëppook alxuraan nag amma am na ay turu jinne ak turu nekk ci biir ak turu yonent yàlla Muhammad ak lu demee ni ay soxnaam ay doomam demee ni jibril mikaal israfil israil loolu ñu ngi si biir ku ne xam ne ñoo ñooy sangu malaaka yi xataa yenn ambiya wu ñu ngi ci biir demee ni Muusa Nuux Ibrahima Isa ñoo ñu ngi si biir miina bi lim tënk bëri na li ci nekk si ay njëriñ yoo xamante dafay jëriñ doomu aadama ci wàllu kaaraange ba ci kër goo xamante ni dafa yore jinne wala saytaane wala rab sax soo ko fa suulee mën naa dañu wala place boo xamante ni dañ ko yàq miina bi dafay dox si loolu gàllaaj la daal boo xamante dafay jëw pour satisfaire doomu aadama bi ci mboolem loo xamante dafay lor nit ki si anam bu ti ki doon à part bi am nañ fi jaaru bi tuddee ko bay rek kun fayakoon bi ñi koy liggéey bëri nañ am wax ne xaat yonent yàlla Souleymane waaye ala kulli haal yaatu na xam-xam téere yàlla bi yaatu na am na bu ñu ciy liggéey boo xamante ni composant bi la fatihatul kitab fatiha la mbirum yàlla la xañ na dafa jëloon xam boobu jagleel ko yonent yàlla Souleymane ba yàlla tàggataloon jinne yi ak buur yi ak mboolem li nga mu ngi ci jaww ji ba am ay mbir yoo xamante ni feeñ na pour loolu pour côté waaye pa bépp xam-xam bu nekk rek daanaka yonent yàlla moo am man la ko yàlla wàccee si dënn moo tax bi am na façon yu ci liggéey yoo xamante ni ñu ngi wax ba kon fa yekkoon bi may xaatim bi nga composé am na ci côté boo xamante ni xaatim yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam parce que lépp xam-xam ci moom la wàcc moom boo kawe mboolem yeneen ti kon jaaru boobu am na si façon ñu ngi koy liggéeyee loo xamante ni dëppoog naa xaatim yonent yàlla Souleymane boobu mais am na ci beneen côté boo xam ne dañ koy liggéey loo xam dafay tijji sa wàllu wërsëg di la protéger moom it di la jox bayre di la jox mbooloo gi mel noonu waaye am maa nag aussi bu fekkee ne da nga teel a nekk ndaw am vingt ans yu mel noonu xaj na mën nga wut ay musluwaay parce que jaaro bi am na nag ak pouvoir boo xamante ni lu jëm si wàllum jinne wala lu jëm si ay turu yu doy waar yoo xam ne amaa ne li gën daal am 30 ans 40 ans jëm kaw am naa ne am na ñeneen ñoo xamante ñu ngi koy takk mooy de vingt ans ñu ngi koy takk mais li gën mooy jaaro bi si jëm boppam am na ay mbir yu si nekk yoo xamante ni aussi bëggul nga koy takk di mooy yàlla yu mel noonu moo waral ñu bëri di ko jël mu bëri fi lool mais duñ gis tawfeex mu ne ko ñu bëri di ko jël di gis njëri ki njëriñ li dañuy fekk ñi respecté mbiru jaaro bi parce que bëggut lu demee ni wàllum mooy yàlla ak yu mel noonu jaaro bi képp ku koy takk da ngay sell te am na ay tur yoo xamante dañ koy liggéey du heure bu la neex nga jug liggéey ko am na ay mandarga yoo xamante ni boo ko si liggéeyee si jëm boppam di ko jàpp parce que jaaro bi dafay dox si biddiwu nit jaaro bi dañ koy liggéey si ay fànn yu bëri ñun bi ñu yor jaaro léegi xam naa ne xañ na dañ nekkoon secret bu ñu téye woon waaye bi ñu amee secret bi léegi war naa ëpp ay ñaar fukki at léeg-léeg nga gis kenn ku génn ne maay borom jaaro yi borom jaaro moom ngi mel ne nga ne maay borom alxuraan bi rek alxuraanul bi dafa ñëw pour fépp comme ni ko Baye waxee ak ñëpp ak ba faw alxuraan bi amul kenn koo xam disponible na mën kaa jagleel boppam en tant yonent yàlla Muhammad si jëm boppam sax yàlla daf ko wàccee si moom rek waaye nekkul tu moom mbiru yàlla la képp xam-xam bu yoo xamante ni yàlla may na la ko si na nga si jëflante ak doomu a rafete ak lela yàlla may si xam-xam waaye bul mosa wote ne yaa moom jaaro wala yaa moom domba wala yaa moom saar bi wala yaa moom lay turu yàlla yi yàlla daf ko fi indi pour ñëpp wa ma arsalnaaka ilaa rahmatil lil alamin bi ko yàlla waxee mbooloom ajam yeeg arab yi ñëpp ñu ngi si biir ñu nit ñi ñuul ñeeg ñu weex ñeeg ñu xonq ñi kon alxuraan bi ko yàlla wàccee pour ñëpp la xataa yéeféer yi nga xamante ni gëmuñu yàlla sax ñu ngi liggéey dara ci ay baatin yoo xamante ni ci alxuraan bi lañ koy jëlee kon jaaro bi nit koo xamante ni yàlla may na la xam-xam mën nga ko liggéey ci ñi la yàlla boole ci wàllu wërsëg tijjee kooku yooyu la nga ciy liggéey ci wàllum secret nag mu des sa diggante ak ñi ngay jëflanteel amaa buñ jógee ko foofu noonu aussi am nañ fi li demee nii chaîne bi chaîne bi secret bi samsu dunia la tudd samsu dunia mooy jant àdduna am amma ñi nga xamante ni bëgg nañ fa fu ñu mën di nekk si àdduna bi nit ñi di leen bàyyi xel ñuy fës parce que léeg-léeg nga nekk si société di liggéey euh, mu am ay xeex yu sew surtout xale yu góor yi nga xamante ni ceen bi am na côté ñoo xam dañu lañ koy liggéeyal ay jigéen am na dañ koy liggéeyal ay góor aussi ni ñuy liggéeyalee jaar yi pour góor ñi noonu la ñuy liggéeyalee jaar yi pour jigéen ñi lépp lu alxuraan tudd si alxu si si côté góor rek tudd na ko ci côté jigéen alxuraan comme ni ñu leen ko waxee dafa ñëw pour ñëpp pour ba faw ak euh, pour lépp it kon chaîne bi dañ koy liggéey mu tudd Shamsu Dunya si wàllu tijjeeku bay rek mbooloo wërsëg ak yooyu si lay dox ak maanaam fal la daal bu fekk ne da nga nekk foo xamante ni xaw a neex nañu surtout gars yi xam ñoo ngi Europe nekk ak tubaab yeeg yu mel noonu ñoom jël ay gàllaaj di ko takk dafay xaw a diis si ñoom moo war lu si bari leen liggéeyal caar bi am ñoo xam dañ leen di liggéeyal chaîne bi am ñoo xam dañ leen liggéeyal xattaa sax ndombo bi nga xamante dañ koy mun di yore fépp ñu mun di génn yàlla musul leen si xeetu accident yeeg musiba yeeg lu ñu mel képp koo xamante nii nag bëgg na aussi di ñu seetloo dañuy seet wootee ci numéro téléphone bi rek dañ leen ko jox xam naa ci bande bi mooy 77 mooy whatsapp bi 77 767 57 11 nga xamante ni mooy whatsapp bi ama insha allahu rabbi nga a ñàkku dinañu utaal benn numéro whatsapp boo xamante ni tigo lay doon dañ ko joxee muy 510 49 41 bi suñu numéro expresso aussi 70 485 12 18 ñu ngi fii nag Dakar Guédiawaye ci terminus 38 bu marché jeudi bi waaye léeg-léeg ñu toxoo fi dem si barab bi nga xam ti fa la suñu waajur wi tëdd ndaxte le 7 novembre la génnoon àdduna ñu ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana way fa si ko mi leeral bàmmeelam donn lañu mboolem maxaamu yu mu doon dund xaal yi ku nit la ko jàmbaar ko xam ne si wàllum jaamu yàlla képp koo xamante ni xamoon na ko xamoon ne nit ku yéema woon la si mbir moom ñu ngi koy ñaanal yàlla loolu léeg-léeg ñu joow ko fii nag dem du fan foofu pare nisaan jóge ko fi ñëwaat fii dakaar waaye am nañ ay représentant yu nekk lu demee ni Diourbel am na ñuy jaayal foofu garab bi daam wilaan incha allah rabbi képp ko wu ñu woo dañ leen jox numéro téléphone am am na aussi ku nekk Ndooram ñu koy wax Ibrahima Cissé moom depuis bi ñu commencé liggéey si garab bi ba tey dëgg yàlla ñu ngi si jëflanteeg moom te lu baax rek la ñuy gis nit la ko yàlla may nit yàlla pire borom xam-xam bu mag moom génn daaraam la yor foofu képp ko woote si numéro téléphone am bi numéro bi 77 555 48 53 77 555 48 53 bu ñu commencé jëflante ak moom si ni garab yeeg léegi yàgg na am na aussi koo xamante ni moo ngi mbuur yarutin la tudd xam naa incha allah képp ku ñu woo yarutin mu ngi foofu am na keneen koo xam ni jigéen la moom di ko jaay foofu mbuur muy soxna Amina Barham Cissé moom it mooy foofu dafiy yëngatu ci wàllum produit garab yi ñuy defar di ko jaay ak yooyu noonu képp ku ñu woo dañ leen jox kenn ci numéro téléphone yi Amma Touba am nañ fa ko xamante mu ngi fa Baara la tudd moom it képp ku ñu woo dañ la jox numéro tigo nga jokkoo ak moom mu ngi di ko jaay fu demee ni dëkk bu ñu wax ngànd côté dëkk bu ñu wax muy tongoor nekk côté ngànd foofu aussi am nañ ku ñu fay wax alaaji na fi sekk ngànd foofu moom mu jaay garab yi di yëngatu ci benn rajo bu nekk foofu sax bu ñuy wax Pakala FM moom mooy foofu di góorgóorlu ci garab yi ku ñu woo dañ la jox numéro téléphone am Ousmane Darame Misra côté foofu côté Mbirkilaan côté Kaffrine noonu ci kaw côté Malem Odar moom it mu ngi jaay garab yi képp ku ñu woo incha allah dañ la jox numéro téléphone am am na ci yaay boo xamante ni mu ngi ci ñu dëkk cosaanu cosaan di njaanjaay moom it ku ñu woo dañ la jox numéro téléphone am pasi bëri na nit ñuy jaayal garab yi nekk biir Sénégal daal xataa am na ñoo xamante ni ñoo ngi bitim réew léeg-léeg di jokkoo ak ñun war a nekkee suñu représentant pare loolu léeg-léeg garab yi dem foofu demee ni États-Unis am nañ fa mbokk taalibe bu baax kilifa koo xam ne bu ñu commencé jëflante moom ak léegi yàgg na lool Babou Faye Babacar Faye ngay remercier di ko ñaanal yàlla tawféex foofu mu nekk noonu aussi am nañu Angleterre koo xamante ni Pape Gueye képp koo xamante ni yittoo li jëm ci mbir moom incha allah soo wootee ci numéro ñii ñëpp képp koo xamante ni woo nga ñu dañ leen jox seen numéro téléphone Espagne am nañ fa Ousmane Diallo mu ngi fa mbokk taalibe bu baax la ku yàlla may la yàlla tawféexal la jeex ci bàyyi moom it numéro téléphone am ci ngeen ñu woowee incha allah dañ leen jox foofu képp ko xam ne mu ngi Espagne France aussi am nañ fa représentant France Italie Espagne Angleterre foofu ba États-Unis xataa Maroc aussi am nañ fa représentant lu deme ni Gambie it comme niveau Sénégal bi ni mu amee représentant fii aussi réew ma it aussi noonu la amee ay nit ñoo xamante ni ñoo ngi jëflante ñoom ñu ñuy booleek ay nit yàlla di def tawféex si li ñuy liggéey. moo xam si ndombo bi moo xam si jaar bi xam si garab si faaw joni joni moo xam si miine bi ñu leen wax moo xam si ceen bi loolu yëpp ñu ngi koy liggéey ay nit ñoo xamante ni nekkuñu Sénégal ak xam ne ñu ngi biir Sénégal léeg-léeg nag nit woo ñu nag gars yi nekk Europe la ñuy sóor mais ñaan yàlla moom képp ku ñu ñëwal ku nekk rek incha allahu rabbi dañ si jëflante ak yow si fànn boo ko bëggee ak noo ko bëggee ñun dañ fi nekk pour satisfaire doomu aadama yi parce que jamaatu rahmatu fawqa ta'zim mbooloo yërmal tax lu mbugal la benn nit boo xamante ne xeebal nañ ko soxlaam muy góor muy jigéen muy mag muy léeg-léeg nag nit ñi dañu foog ne am na fooy toll moom nit ñi nekk Europe rek ngay toog di yéene ci déedéet ga bagage yi ñuy liggéey moom pour ñëpp la incha allah rabbi képp waxante ñëw na bëgg leerlu ci jaare bi wala ndoom bi ñu liggéey wala garab ci faaw joni joni bi su jokkoo ñun ak mboolem xeetu suñu ndaw yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal ak ñu nekk Europe lañ leen jox seen numéro téléphone tur bi Mawlana Cheikh Ousmane Touré la Ousmane Touré mooy tur bi kese waaye dem nañ ba dañ créé benn groupe WhatsApp bu tudd Kemtaanu Baye Niass buñ ko kerek léegi depuis 2017 la moo waral ñu bëri ci teer Facebook bi dañuy gis Maolana Cheikh Ousmane Touré borom kémtaanu liggéey bi aussi am ñoo xam dañuy wax Maolana Cheikh Ousmane Touré borom kémtaanu secret yi ñu ngi fii Daaru Salaam tur ministrante bi bi ñu fi nekk nekk ay taalibe murid ñun ñëpp ñu ngi seq ak ñoom jàmm ak salaam wax dëgg yàlla ay mbokk taalibe yu baax lañ am nañ fi koo xante ni soriwuñu tout péré nii sax ñu tuddee Omar Gueye moom i léeg-léeg képp koo xante ni génn nañ dem Saalum sax te fekk nekkuñu fi suñu woowee dañ la jox numéro téléphone daf ñuy jàppale si wàllum jaay garab boobu muy sufa u joni joni ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaxiru daxwaana alhamdulillahi rabbil aalamiin wa rahmatullah